bu ñu la peesalee nag say balance wayef wa amma man xafat mawazinuhu koo xam ne ay balance am dafa wayef toy benn daa jëfutoon mbaa lam jëf doyut mbaa ay bidaa nekkoon ci ay bidaa li damat nañoo yee julli ñi de julli ñaa ngi jëf rek waaye ndax la ñuy jëf moom la Muhammad doon def sallallahu alayhi nga daa bokk ci fulla jëpp jëf jooy jëf nga laaj ba xam nan la ko Muhammad defe woon sallallahu alayhi wa nga xam nan la ko Muhammad laa wax de defe woon sallallahu alayhi wasallam nga defe ko noona jeex na lu Muhammad defut bu ko def bu ko xalaata def donte ñëpp maas nañ di ko def sa yónni ko ci yow yow Muhammad lañ la royloo sallallahu alayhi wasallam laqad kaana lakum fi rasulillahi uswa xasana wallahi jëpp jëf joo tekki sunna moo xam néew na moo xam bëri bu bëree mu gën a baax waaye bu néewee itam du la wàññi lan moo am ñàkk solo mooy bidaa loxo dañ ko sos loo ca def lu mu bari bari bari bari bari pënd lay doon ëllëg yomal xam doo ko fayee kon koo xam ne say mawasin dafa wayef toy ëllëg fa ummu